laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah faa laa ilaaha illallah faa laa ilaaha tàggu maam Cheikh Ibrahima Fall ne ko. fan jëm de. fanu jëm. ñeneen fay fekki. ñeneen fay leen fa tax a dem. la leen fa moo di bëgg liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh a Fall. ak su ñu la ñu yore seen njaboot loolaa leen fa yóbbu. te réew ma kat bari na jafe-jafe lool Fall. ma bëgg nag lu ma fa yóbbaale loo xam ni. ci yow sëñ am ni Modou Mbend mi laa koy jële yaay Cheikh Ibra yaa ma koy jox. mu yóbbaale ko ca ñoom. ba su ma demee ca ñoom. ku ma fa teg bët. Cheikh Ibrahima Fall faj sa aajo loolu la waxam sëñ Cheikh sëñ sëñ am di Modou Mbenda ne ko noone nga ko daa amee ni koy amee waat. demal te ñëw. mu ne ko sama borom nag. mu damay ñaan sama borom. dem bii may dem. dem bii may dem. naa dem ci jàmm. naa dem ci jàmm. fekk fa jàmm. ñëwaat fii fekkaat la fi yow sëriñam bi. mu ne ko noo ko bëggee noonu lay ame kon sëñ am ni Moodu Mbend mi ngi leen di nuyu. di leen sant. di leen gërëm. ci liggéeyu sëñ Tuubaa bii ngeen ne. di ko liggéeyal ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. fa jógee nag ñëwaat Mbacke doon ma ne ko man de Mbacke damaa ñëwoon doon siyaare si doon tàggoo si waat doon tàggoo dem ci ba nu daan liggéey demal sëriñ bi daan dem nag ñu fay fekki ñee ñu fay fekki la leen fa tax a dem la leen fa tax a dem mooy bëgg liggéeyal sëriñ Touba te bëgg a liggéeyal it maam Cheikh Ibrahima Fall ak lu ñu yore njaboot te réew ma daa bari jafe-jafe fa Mbàkke ne ma bëggoon nag jafe-jafe yee la koy dindi ak lay war a tax a am ñu am lañu fa bëgg ci yow Sëriñ Tuubaa yow mii la nekk te loolu laa bëgg nga jox ma ko mu yóbbaale ko ca ñoom damaa bëgg nag nga fab sa jëmu ju tedd ji def ko ci sama jëmm ji man falilu ba su ma demee ca ñoom ba fa teg bët. comme fa teg bët. Serigne Touba faj sa aaj. mu ne kon noo ko bëggee dina na amee kon sant leen bu baax a loolu nag. nee da ko yéenoo ak état li gépp de. daje fii. waaye fii. daje fii daje fii. ñu daje fii daal la bëggan. mu gis leen. ngeen gis ma. ñu gis ko. <laughs> waaye nag yéen di yàlla dogal ngeen gis ko nag nii. yéen la yàlla dogal lool tey. yéen la yàlla yéen ci yéen noog ab jaam nag ab jaam. nee na ab jaam nag. mënees koo dimbalee dara ci lu dul ngëmam. mënees koo dimbalee dara ba mu jëriñ ko lu dul fu ngëmam wax nee lu ñuy seen gëm. seenu gem mo koy indi mu jappandi lol ci yeen waaye ko ci gem deug de baye xel ci bu yeboo nga baye sa xel ci ne dinaa fi ñaa deewu dina fi ñu wat deewen de soba yalla soba mu fi yàlla te bu baba boobaa day ginnaaw sënga maté nako ko itte ji mu fekkon nga itte wo ko yow serigne touba dana ko safara ba nga yëg lolou kat du lu ñu romb li ci kanam la ne fekkee La ilaha illallah